mën naa ci jiitu maa ngi tudd Mouhamed Fata Sarr maa ngi wane ne man lii sama jëmm la nekkul luñ monte man maa wax wax ji fitna ji yëkkatiku Sénégal ay xale génn di wax ci kilifa diine yi maa ngi wane ne Ahmed Lo moo ko jëmbat Sénégal man maa ko wax parce moo bind benn téere tuddee ko tax diisul asxaas fii suuf yi lu ñaaw lu nekk mu wax ko jëmee ko ci ñi aju ci tarixa suufiya euh, dem na ba àgg ci ne ñi aju ci tarixa suufiya yi mën nañoo takk seen yaay mën nañoo takk seen doom mën nañoo takk kuñ bokkal ndey baay ñoom daal lu xaraam amul ci ñoom loolu amul benn xale bu koy liir te du wax ne ñi gëm lii ay yéeféer lañ sosal na Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu anhu ay sos yoo xam ne ne Cheikh Ahmad moo ko wax jëmee ko ci yàlla amul benn xale bu koy liir te du wax ne Cheikh Ahmad Tidiane la te loolu mu wax ne Cheikh Ahmad moo ko wax joxe référence u téere ya boo demee doo ko fa fekk kon xale yi lii ñuy wax dañ ko liiree ci téereem moom Ahmed Lo pare di ko tari mënoo indi matt nag ci digg pénc ay xale dem uti alme taal ko nga ne kat man defuma dara Ahmed Lo mboolem xale bu saaga Sénégal mag mu aju ci tariqa Ahmed Lo yow yaa ko ko jàngal man maa wax loolu su fekkee weddi nga ko porte ma plainte ñu xool ba xam ndax li ma wax dëgg la wala du dëgg xalé yi dañoo wax yow da nga bind li nga bind ñu tiire ko mu doon ay millions yi millions ñu tassaré ko ci dero bi yépp nga yaq deru ay doomu adama ak leen ne amul ba noppi botiku di def ay annonce ci radio yi ak di def ay déclaration dama bëgg sa bureau bi bi doon def déclaration ñu jël sama vidéo bi porter ma pelente ñu xol ba xam ndax li ñuy wax ñun deug la wala du deug jot naa luy tolloog fanweeri audio yoo xam ne la nekk ci ojo ya bu tasaaroo ci réew mi réew mi tàkk xale yooyu kan la ñuy wuyoo yow la ñuy wuyoo ak ngaa yéex a def déclaration ne xale yi nekk ci internet bi nañ ko bàyyi parce que xale yi gëmuñu ku dul yow yow lañu gëm buñ lay tudd mel ni kuy tudd ab yënantu ba noppi nga wëlbati ko toog ci sa ruq naan lii du man lii du man an sa téere bi téere boobu bu ko xale yépp jàngee te lan ca def yépp nekkul dëgg suñ waxee ñu ne ñuy dund sunna dund leen sunna sos ngeen di dund man nag man maa def vidéo bii nekkul luñ monte nekkul dara man Mouhamed Fata Sarr maa ko def maa la ko accusé direct yow Ahmed Lo fitna ji am Sénégal yow la yaa ko def kenn defu ko ku la mooy parce que yaa ko jàngal ay xale gëmloo leen ne mag ñi nekk senegal yenn téere yi agsiwul woon ci ñoom xamuñu woon sunna moo tax toppuñu ko xale yi gëm ko ba tax ñu nekk ay xale yu radical dëkk ci groupe whatsapp yi di saaga mag ñi lii ñu wax ci sëriñ Muntaxa Mbàkke wax ko ci sëriñ euh, euh, Sidi Muxtaar Mbàkke wax ko ci Cheikh Ahmad Tidiane Sërif wax ci sëriñ baaba kër Si xale yi ko wax yépp yow yaay seen sëriñ kon yow seen sëriñ bi yaa leen ko jàngal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته